alors euh, Cheikh Ahmed Cissé moom temps yi mu ngi dal ci kaw Californie de. voilà ginnaaw jafe-jafe bi mu fa am ak waa ONG Jamra ak mhm. plainte yu fi euh, tegu woon ci ndoodam ba mu daal di jógee fii ci Sénégal dem euh, bi jaaree fa dem fi nga xam ne rek moom mooy. Euh, ca Niger ba dem foofee nga xam ne rek moom mooy Nigeria ba jamono gi mu nekk fi nga xam ne moom mooy Amérique moom Cheikh Ahmed nag ba mu demee ba tey bëri na ay yi muy def ak ñenn ci ñi nga xam ne rek day génnee seeni ay secret kam di leen yàq mhm. bokk na ci ki nga xam ne rek moom mooy Khaliphone Sall bi nga xam ne ñëpp xamoon nañu seen diggante ñoom ñaar mhm. ba demoon na sax ba ñoom ñaar dañuy fréquenté euh, loolee nag euh, doonoon lu ñëpp xamoon ba jafe ñëw seen diggante ginnaaw moom Khaliphone bi mu amee woon jafe-jafe ki nga xam ne mooy aji caare ba euh, caabi féete woon ko ginnaaw euh, ay jafe-jafe ñëwoon ci diggante moom ak euh, ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Ahmed Cissé mhm. moom Cheikh Ahmed Cissé également bi mu amee problème ak li nga xam ne rek moom mooy yoon également bëri woon na liñ gisoon Euh, ki nga xam ne moom mooy Californie di génn aussi di jël ay baat yu ñaaw aussi di ko teg ci kaw ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Ahmed Cissé moom Cheikh Ahmed Cissé ba mu dajalee loolu yëpp nag la mu def rek mooy indi ay révélation ba ñu bëri sax jàpp ni que euh, li muy jiiñ Californie rek mooy que ni dafa amee VIH sida ba ñëpp xëy aussi di ko titré duñ def dara rek lu dul dem seetaan ci ni mu gën a yaatoo ci vidéo bi nga xam ne def na ko bu ko defee ñu ñëwaat commenté ko moom saa su nekk day génnee preuve di teg audio ñi maa ngi bind alxuraan billaahi wallaahi tallaahi maa ngi gën ci jëmmi yàlla du musa dem def bilan médical publier ko bu ko defee la jabaram yi tas maa ngi waat ci yàlla parce que dama xam mais nag nettali la entre ñun na ci yem du mun a wax lii wala lële waaye comme moom mooy kali preuve kali mu am preuve na dem def bilan médical wane benn ñaareel na dugg avion Sénégal aéroport ne maa ngi lii rek laa ko wax man moom xam ngeen ne maa ngi Amérique <coughs> su may nettali na da may jay ndax may jayaxu di gën a nettali xam nga nettali dafa neex sooy nettali nii sa làmmiñ bi day tax mën nga nettali ba laa musa waaye léegi da ngeen may jey naan ma dëgg la sëñ bi naan bi yow la ñuy topp su ngeen may jey ñoom naan ma yaa fi ne après daf may cuq may gën a wax. nettalikat da nga koy jey te nag da nga naan yow dëgg la di nettalikat noonu nga koy bu ngeen amee koy nettali da ko naan ah dëgg dëgg la yow dëgg la di c'est vrai de c'est vrai de noonu ngeen noonu ngeen def nettalikat. <laughs> mais comme man maa ngi nettali da ngeen mën a yaa fi ne ah bon c' est vrai non mais sëñ gëm naa la de nii ngeen ah, dañuy communiquer damay nettali ngeen may ruube may ngeen may xam quoi may gën a nettali bi mu demee kaso man dew ma seeti ko waaye daf ma daan woo mu ne ma saay fii am na lépp ah. Baye officiel. yaay saaga ndey loolu yàlla baax na mu ne ma fii jigéen rek la amul ba pare ma nettali leen benn histoire man ma nettali leen ko xam nga kii euh, Tata Nabou Daas Tata Nabou Daas xariti Kaliphone la woon lii nag moom bu mu génn suma gémmiñ wax leen rek ne dañ ko dégg dañ ko fo ci weeru weewu bëy léegi tata Nabou Dash xariti Californie la ñoo daan ànd léegi Nabou Dash moom euh, Californie moo ma indil Nabou Dash ñu gisante quoi yéen a ngi dégg na nag ci ñun ñaar léegi Nabou mu ngi xamal kalifon saako day yu bëree bëri bëri léegi Nabou toog ci. moo tax Nabou Dash keroog bi muy tontu mu naan benn xale bi góor tuddut Kali léegi Kali ak Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bi ñoom ñaar dañuy du ma mën a wax dañuy laalante quoi xam nga loolu du ñaaw day ñaaw mais dañuy ànd daal dañuy ànd <laughs> man du ma tuumaal kenn mais ñoom ñaar dañuy ànd ay ay ay xarit leen dañuy ànd ba bi ñuy tëj Kali sax Fatoumata Ndiaye mu ngi doon jooy. waxuma dañuy laalante du ma mun a wax loolu lool loolu loolu dafa xam nga dafa garaaw quoi mais ñoom ñaar dañuy ànd comprendre ngeen dañuy ànd quoi ay góor càmmeñ ak jigéen leen fa laa yem bu <laughs> ma kenn yóbbu <laughs> donc Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi Kali dañuy ànd en tant que ay alpulaar hmm? léegi moo tax Kali sa bëggoon na maa pour ma ànd ak Fatoumata Ndiaye ma ne ko non non. sama bii dafa cher quoi borom ànd laa bëri du fu ne lay xam nga yéen ngi dégg léegi eh, jote bi gën a neex mooy entre Tata Nabou Dash mu sell mi ak Californie bu leen ko umpale ndax tey ay <coughs> oh, <coughs> bu ma duggee ci gàdd Nabou Dash léegi Californie moom saa su nekk day génnee preuve di teg audio maa ngi bind alxuraan billaahi muy euh, Cheikh Ahmed Cissé ak ay révélation yi nga xam ne aussi def na ko ci euh, diggante moom ak euh, Californie dégg lam ca wax lam ci ñëwaat rek mooy diggante ki nga xam ne wala bokk ki nga xam ne moom mooy Californie du ñeme benn yoon dem defi li nga xam ne rek moom mooy nan la ko waxatee sax bilan de santé voilà bilan de santé parce que euh, du ko ñeme benn yoon ndax heure bu ko defee rek ay jabaram dina dinañu dem ba ko dégg ngeen aussi yeneen révélation yi mu waxaat te loolee ba mu ko waxee rek ñu bëri ñu ngi jàpp ni que li tax Kaliphone du ko def parce que tout simplement dafa amee feebar bu bon boobee nga xam ne euh, bëgguñ ci ñëwaat benn bi également muy euh, ki nga xam ne rek moom mooy Nabou Dash parce que mi nga xam ne ni que ki nga xam ne moom mooy Kaliphone dafa am lu mu jotoon a sekk ak Nabou moo taxit Nabou Dash bi mu jotee ak Fatoumata Fouta Tampi ci problème bi nga xam ne moo ñeel li nga xam ne moom mooy Astou Dione ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh tuddu tudduloon benn yoon turu Kaliphone ndax mi ngi naan Kaliphone sama xarit la sama góor la te waxtaan naa ak moom beneen bi également ñëw na ci diggante ki nga xam ne rek moom mooy Kaliphone ak euh, Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bi bay xam ne rek ni que Fatoumata Fouta Tampi euh, ak euh, ki nga xam ne rek moom mooy Kaliphone seen diggante voilà dafa am leneen lu ci xew ndax bañ na ko sax ba Kali ñu koy arrêté rek Fatoumata Fouta Tampi da doon jooy am ay révélation yu bëree bëri yi nga xam ne aussi wax na ko lu bëri aussi daf ko junj ba sax di ñu jàpp xamal ni que dina ci ñëwaat aussi gis nañu aussi Kali mu génnoon aussi am ay baat yi mu ca waxoon aussi loolee dinañ ci delluwaat ci na mu gën a yaatoo rek ngir rek mën a fexe ba li nga xam ne rek mu si xàmmet moom la doon junj aussi ñu topp ko ca na mu gën a leere ñu indiwaat ko suñu bopp. Cheikh Ahmed tamit na def bilan médical moom ñu xam ndax dara dalu ko. Hmm, abi yaa ngi dugg <laughs> ah, damay la <laughs> rek yaa ngi dugg ci Cheikh Ahmed <laughs> dama yooyu waay te man sax pour man sax Kali il a vraiment pas besoin bu defee euh, li nga xam moom mooy bilan médical aussi di ko. révéler di ko publier ñu di ko xam. donc mi ngi noonu daal révélation moom la quand même ci lu tukkee rek ci diggante moom ak Californie ginnaaw bi ay jafe-jafe doxee seen euh, diggante euh, te mu ngi bëgg a yàgg aussi moom daal mi ngi Amérique di def ay révélation di génn quand di wax daal ay bal. te nee na da leen kaa jëw de da leen kaa nettali de. Mhm. bu kenn tudd ne ci moom. ngeen ko déggee. na yem ndànk la wax ak yéen. naw le daa foor ci diggante gars yi quoi. <laughs> waaw te bu ngeen di wax nee leen da ngeen koo for ci weewu. <laughs>